salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu ñi ngi fii ci benn rond-point bu nekk fii ci VDN bi euh, fi tolloo gàddaay rond bi tolloo gàddaay rond la boo xam ne mbokk yi bu doy a doy waar la damay ñëw nii seen mbokk Makhtar Sarr mooy wax a génn damay ñëw fii euh, di romb ki ma àndal nii muy mbokk mi di Souleymane Ndiaye laa naan ko fii de rond-point la bu doy a doy waar néew na bu ma fi rombee te fekkuma fi oto bu saaraan ndax euh, VDN beeg nii mu bindoo da ngay daw euh, ba tolloog rond bi soog di ko gis rawatina bu dee guddi la bi ma koy wax loolu bi may yem ci oto bu këpp benn la fee ngeen di seen nële oto la ñuy yëkkati nële euh, ñi ci nekkoon ñu ngi may wax ne kenn ki ñaari tànk yëpp moom moo damm ñu nekkoon ci oto bi ñëpp ñu nga nee tëdd yàllaa ci def sutura te yàlla na sutura si wéy ndax ñi ngi woo saapoor nii ba léegi police ñoo yegg seegum mais sappoor yeeg seeguñu fi gis ngeen oto yaa ngi nii yëpp gaare muy loo xam ne nag lu mat a bàyyi xel la ngir yàlla rond bii bi tolloog jaxaay wala gàddaay nañ ci jël ay matuwaay ku sa kàddu joti ci ñiy defar tali yii rawatina ñi defaroon rond point bii nañ ci jël matuwaay xool leen tey fii ñu toll nii ay vingt deux heures vingt trois heures lamp yii moom moo fi nekk lamp la yoo xam ne daanaka leeralu dara benn lamp bii xool leen benn bii dong dong moo fi tàkk ci làmp ci rond li ko wër géej gaa ngi nii ngeen di seen nii mu lëndëm mi ngi nii li ko wër nii ngeen koy gis ay làmp oto mooy li fiy leeral xanaa beneen làmp bale muy ñaareelu làmp mais yi ci des benn tàkku ci da ngay daw ba tolloog rond bi soog di gis na yaa ci rond point gis nga lii la ñu defar pour mu nekk signal bi lii da ngay ñëw ba tolloog moom soog di gis lii muy tàkk lii lañ defar pour oto bi pour oto yi war a gis ne mooy signal te xool leen li ci yéeme ay oto ko mbëkk ba mu tourné maanaam lañu ñu defaroon muy signal ay oto moo ko mbëkk nii ba mu tourné nga xam ne nii nekkatul sax la taxoon ñu def ko fi pour muy signaler mais beneen côté bi la lay signaler far te bi ko oto yi mbëkkee ba léegi gis nga mu ngi nii jubanti ko muy loo xam ne lu doy doy waar la ngir yàlla rond point bi tolloo gàddaay nañ ci taxaw ndax lu dangereux la ci euh, fii mu nekk nii ak oto yi fi def accident ay bakkan man fee rot ndem amul bakkan yu fi te yëguma ko ñi ngi ñaan daal ñi nga xam ne ñoo yor dogal yi rawatina di defar tali yi rond bi tolloo gàddaay nañu xam ne rond point bu dangereux la ñu jël ci ay matuwaay ba oto yi daw bu ñëwee ñu xam ne toll nañ ci rond point mais mënuñoo xam ne toll nañu ci rond lu dul ñëw nga ba yegsi ci rond bi te du oto yëpp ñooy mën a tolloog rond bi bi freiné maîtriser seen oto romb naa fi oto yu dul jeex li ma fi wàññeegum ci ay oto ay dizaine oto yu fi këpp la. te loolu mooy yi nga xam ne rek man yem naa ci te li ma fiy jaar du bari kon ñaata oto laa gisul yoo xam ne yu fi këpp la muy lu doy waar ñu ngi koy métti lool di sàkku ñu jël ci matuwaay nu mu gën a gaawee rond bi ñu sécuriser ko ngir ñi fiy jaar seen mbokk Oustaz Makhtar Sarr salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu